yi ca la futti Ousmane Sonko waxuma ko le quotidien moo ko bindee noo ubbil yéenekaay bi xamal nañu ne njiital parti Pastef li honorable député Ousmane Sonko immunité parlementaire am suba ca lay dañ su moytuwul it suba ci la koy jébbal juge bi ndax woote nañu appelé ñeer ci assemblée nationale suba ci àjjuma ji ngir càmbar liggéey bi nga xam ne commission ad bi def na ko jëm ci dindi mbalaanum kiirlaay bu député Ousmane Sonko suur soi nañu jël Sonko jébbal ko juge bi ngir mu lijjanti ak moom tuuma yi xale bu jigéen bi di Adji gàll ci yow ndoddam Sud Quotidien gis ne yoon wa ñu jaarale woon Khalifa Ababacar Sall Ousmane Sonko tege na ca yoon wa ne militantam yi ak sympathisant yi ñuy teg loxo bu nuppi jëm ci dindi immunité parlementaire ci assemblée nationale noonee la doxale woon ak Khalifa Sall atum ba ni ñu ko jëlee yóbbu ca kaso ba loolee nag yéenekaay bi gis na ne mooy yot Ousmane Dakar dane dafa ay député yoo xam ne li ñuy waxtaane ci biir commission ad bi dañuy génn di ko wax ci presse bi te loolee texte yu assemblée nationale yi da koy bañ député Cheikh Bara Mbacké Dolly tontu ko ne ko maa ba sebet ndax i weñ ni nit koo xam ne bokk nga ndékki ak Léopold Sédar Senghor añandoo ak Abdou Diouf reerandoo ak Abdoulaye Wade nit ku mel noo nan la mën a wëlbatikoo di mbaxar yàpp Macky Sall ndax tuut samu lay sexal ci kaw loolee lise ko xamal ñeel le nañu mbirum Ousmane Sonko bi tax nañu bari ci dëkk bi dañoo ànd ak tiitaange laa si ne nañu moom kay sagara ngay xeeñ ci réew mi ne assemblée nationale mi ngi jëm ci levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko waa këram yi di waa parti Pastef ak waa FRAPP France Dégage ñoo ngi nas ak nësat ab doxum ñaxtu boo xam ne nee nañu doxum ñaxtu bi ca palais de la république fa la ko bëgg a teerale Le Quotidien dolli ñu ci ne aw ñoñam maanaam ay partisan procureur di Antoine Félix Diome daas na fanaanal toog di leen xaar ñi bëgg a manifester ci réew mi ngir xeexal Ousmane Sonko yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal li leen Antoine Diome dencal Adji Sarr li mu dencee tey la koy wax juge bi l'observateur nañu juge d'instruction bu huitième cabinet bi ñu dénk coowal mbës mi moo convoqué aji ngir déglu ko daje bi Adji Sarr amal démb ak ewokaam ngir waajal seenub defante ak Ousmane Sonko la tukkee ca gise ba am na lenn lu ci journal ñooñu ña nga ñu téye ba léegi ca division investigation criminelle ci bëccëgu tey ji ci lañ leen war a defeere lii quotidien boole leen ñoom ñett ñëpp di leen waxtaane mu di Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Amadou Clédor Sène ñetti doomu aadama yu njuur toju seen bopp maanaam ay tête brûlée noo ne la bi xëy tuddee ba wax ñuy lu bare ci seen histoire Vox Populi nañu li leen bàyyi ba léegi ci loxoy alkaati yu division investigation criminelle yi moo di seenub garde di toppee ñu topp yoon akub liggéeyam ba ci libération certificat nationalité yi mu am li am ci xët mu njëkk réew mi quotidien ma nga xewee ca Mbour ubbil yéenekaay bi ñaari xale yu góor ñoo dem ca hôtel Lagon 2 ca Mbour yéenekaay bi nañu ba ñu yeggee kenn ki dane moom doomi président de la République Macky Sall la ka ca des ne moom i doomi Idrissa Seck la journal bi nañu ca la ñu nekkee ca l'hôtel présidentielle ba jël fa benn suite présidentielle tëdd fa ba seen xool sedd dem bàyyi leen ak bor lise ko nañu facture bu million cinq cent douze mille moom la ñu fa bàyyi te li ci doy waar nag journal bi nee nañu facture boobee waa présidence de la république ñoo ko mujj fay nee nañu doomi président de la république bu ñu naan Ibrahima Sall moo joxe instruction ngir ñu fay facture ba